sénégalais yi bëri woon nañ loolu euh, ngir euh, kon ñëw foofee ca Montréal euh, woo wuy si ci woote regroupement de promoteurs privés mais xam nga ba ñuy def kon manifestation boobu di salon de l'habitat salon itinérant kon de l'habitat dafa kon daal di yemook mois bi nga xamante ni jagleel nañ ko Sénégal te doom Sénégal ya fa ne di koy amal di kon mois économique du Sénégal askan bi nag ñëwoon nañu loolu ku ci nekk nag ak li nga xamante ni moom moo la fa indi woon ak mbetteel nekk nañu fi lu yàgg macha allah waaye chaque jour bu ñu xëyee dañuy ñaan yàlla nu ñuy ñibbee suñu dëkk te ku ñibbi boo tukkee nga nekk kër famille wala nga nekk sa kër boobu boo ñëwee bugg nga yokkute yokkute bi mooy nga am sa kër loolu mooy suñu góor ku mel ni président Babacar fay ñëwoon na fi toog ak moom waxtaan moom donc luñ ci dugg rek suñu doyalu ak suñu coobare moo ñu ci duggal waaye du mbuumboom bi moo ñu ci dugal li ñu woon moo ñu doy waaw dañu gis lu wér. kontaan si organisation bi rek euh, bi ñu ñëwee fii ba léegi tout se passe bien donc euh, gis nañu ay produits yoo xam ne intéressé nañu euh, gis nañu projet yi développement si booy gën a Dakar autoroute à bi donc maanaam na projet bu gën a attiré sama attention bu ma gën a intéressé bon xëy na du ma def publicité pour gars yi. mais daal gis naa lu ma doon wër donc euh, loolu daal laa amoon lu may tàmbale. c'est la première fois nga bokk ci genre événement yi. bon personnellement oui c'est la première fois ma ñëw ci salon immobilier donc euh, jot bi mooy jafe yenn saay te moo tax tey daal comme am naa jot bi ma daal di ñëw xool lu gars yi présenté fekk euh, xool ndax ñun dinañ ci gis suñu bopp ak lépp. mais jusqu'à présent daal gisuñu dara loo xam ne mun nañ ko tegg daal. première fois nga Non, ça fait, ça fait très longtemps, depuis, je pense que l'initiative de, euh, de ce forum, chaque année, je viens. Et puis, c'est dans le cadre du mois du Sénégal aussi, j'en profite pour venir euh, et voir les choses intéressantes. Euh, bi mooy troisième fois euh, promoteurs yi di fi ñëw mais deuxième fois par rapport ak euh, mois du mois économique du Sénégal donc à Montréal bi passé gisoo woon nu doy sa bët wala. en fait gisoon naa yu intéressant mais finalement j'étais pas décidé finalement donc c'est pour ça que j'ai décidé de de de reporter à plus tard dama de reporter les choses à plus tard et puis voir aussi d'autres d'autres moyens voir les particuliers mais cette fois-ci bi ma ñëwee ren euh, je pense que j'ai trouvé des choses super intéressantes plus intéressantes que les années passées. kon décidé nga. waaw am nañ ci yaakaar. la première fois ma ñëw mais je suis vraiment surpris. si potentiel bu am actuellement au niveau des logements j'ai l'impression que dafa am benn engouement sax waaye euh, ñu ngi proposer ay produits yu kii mais nag xaw na cher dañuy waxante dëgg nag xaw ma waa Sénégal lu ñuy vivre mais ñun à l'étranger je vois des des appartements à cent millions je trouve que oh, wow c'est cher ça c'est mon point de vue là <laughs> mais je pense que qualité baa ngi fi et puis l'accueil aussi tamit vraiment elles sont disponibles jigéen ñi et puis góor ñi tamit les informations te donnent la bonne information et en plus euh, j'ai tamit benn accueil vraiment ex bu chaleureux ak au niveau de la banque euh, de l'habitat vraiment c'est quelque chose à je pense que euh, ñun Sénégal la ñu dellu donc euh, il faut que tamit l'État mais en des politiques yoo xam ni ñun tamit mun nañu dimbale pour ñu am logement ça c'est c'est vraiment apprécié la loolu loolu message boobu laa bëgg autorité yi ñu généralement ñi nekk ci diaspora bi dañuy am toujours ay problème mu nax euh, ci ci wàllu suuf wala ci wàllu jënd kër euh, peut-être salon yu mel nii dina leen dimbali yéen ngeen dem directement à l'information. exactement là moom euh, parce que j'ai posé pas mal de questions par rapport à ça parce que ñun ñëpp loolu la ñuy xool la parce que bien que am nañu ay famille yu ñëw ñu baax à Dakar mais tamit léegi dëkk bi kenn wóolutul kenn. su ñu amee genre yi am benn plateforme tamit informatique boo xam ne on peut aller chercher l' information dina aider tamit la diaspora pour ñu mun acquérir ay terrain ou bien tabax oui. mais gis nga fi du la intéressé. waaw yëpp ma intéressé ah, surtout particulièrement fii waaye ñooñu seen affaire rafet na trop mais am na ay reproches yu ma mën li ma bëgg def. parce que gis naa gars yi nu ñuy présenté au niveau même ci kii mais design bi tamit nañ war nañ ko xoolaat pour man war nañ ko xoolaat bëgg naa mu gën a am raffiné parce que defe naa finition yi loolu mooy manqué finition surtout euh, exactement parce que qualité et surtout tamit cuisine tamit ñu ci ñu jox ko tamit mettre ko un peu en valeur j'ai l'impression que dañuy jël benn pukus rek teg ko noonu loolu laa gis parce que surface bu ñuy def cuisine dafa pour man dafa tuuti donc euh, loolu suñ ko mu a. genre sax moo tax promoteurs yi di mën di améliorer seen ay produits. oui exactement exactement exactement loolu la et puis vraiment c'est apprécié yi ñoom tamit ñu ñëw fii pour xool tamit ñun suñu fil ñu am feedback pour mun améliorer wu. gis ngeen mbébét ak bëgg-bëgg yi ci wàllum suuf loolu nag di wane ne demande bi mi ngi fii euh, kon ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi rawatina sénégalais yi nekk ca biti réew ku ci nekk nag bëgg nga daal di am ab suuf laataa ngay ñibbisi wala nga daal di tabax kër moo tax nag promoteurs yi ñoom ñëpp nag euh, xam nañu euh, kon li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëgg yi te fas yéene ko nag daal di rek saafara ni nga koy gisee nag ci image yi gis ngeen promoteurs yi ñi ngi rek daal di sëgg ku ci nekk ci ñoom nag di daal di wax ak ñi nga xamante ni ñoo ñëwoon sa stand ngir waxtaan ñoom jëmee ko ci wàllum jot suuf euh, wala kër moo tax nag euh, seen président euh, di président promoteur privé yi di Babacar Faye ñëw nag ñun ci solos kon li nga xamante ni moom mooy salon itinérant de l'habitat mais surtout ndëgërlaay bi nga xamante ni ma nga ca ñun suñu objectif en tant que président du comité d'organisation dès l'instant où commencé nañu def cérémonie d'ouverture nit ñi ñëw fekkee ko on est on a atteint nos objectifs presque à 80 pour promoteurs ñoo ñëw. Euh, en fait il y a une euh, dizaine de promoteurs à promoteurs mais des promoteurs yoo xam ne on les a sélectionnés parce que ñun suñu salon bi duñu bàyyi n'importe qui ñëw exposé nit ñu ñëw exposé c'est des gens qui ont des vrais projets des projets qui sortent de terre comme projets yoo xam ne nii soo demee sur le terrain di nga fekk kër yi ñu ko ou bien ñu nekk di ko tabax donc euh, c'est des promoteurs assez importants yoo xam ne nii ñu ngi fépp ci Sénégal. Euh, que ce soit à Diamniadio que ce soit à Keur Massar à Tivaouane Peulh que ce soit à Dakar que ce soit dans les régions bon il y vraiment benn assemblage de promoteurs bi assez représentatif de ce que la promotion immobilière est en train de faire au Sénégal. bu ñu jógee nag ca ca Montréal dañuy dem nag ca ca Chicago xam ngeen ne nag euh, Chicago nekkoon na étape bi nga xamante ni étape bu am solo la euh, étape bu Chicago euh, dañ ko rek daal di amal ndaxte jigéen ña fa nekk regroupé wu ci ab association ñoo woo kon regroupement des promoteurs privés ngir ñoom tamit ñu daal di allier utile ak agréable xam ngeen rek daal di méngoog euh, feetub indépendance moo tax ñu bëggoon jëmmal feetub indépendance boobule waaye jaarale ko nag ci ay euh, kon euh, salon bu ñu jagleel kon wàllum habitat donc joindre l'utile à l'agréable tamit gis ngeen ko promoteurs yi saafoo nañ bu baax a baax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi établir foofee ca euh, Chicago ngir euh, indil leen ngëneel mais surtout nag euh, wax naa ko a dalal seen xel ci wàllum kon jotum suuf parce programme yi ñuy rek daal jënd wala ci suuf yi nga xamante ñu koy rek daal bëgg teg loxo waa banque de l'habitat wax naa ko moom mooy ñoom ñoo nekkoon seen sponsor leader waa banque bi aussi ñëw indi seen ay produits ngir wan waa diaspora yéen dangeen bokk ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy sukkali euh, lii di euh, kon euh, wàllum dëkkuwaay fii ci suñu réew te faw ñu gunge leen ci wàllu woowu merci Dieynaba Euh, comme ni ngeen ko xamee banque de l'habitat li ko tax a jóg mooy financer immobilier au Sénégal euh, dañoo bëggoon gunge suñ mbokk sénégalais yi nekk au niveau de la jaspora et loolu nan lañ koy defee banque de l'habitat dafay dem fépp fu suñ mbokk yi nekk au niveau de la diaspora nekk di leen fa fekki nan lañ leen fay fekkee mooy di fa ubbi ay agence ak di fay ubbi ay point de dédiés mais aussi di profiter ci occasion yu mel ne salon itinérant de l'habitat salon itinérant de l'habitat dafay am lu day doon lu am solo pour banque de l'habitat parce que dafa ñuy permettre ñu ñëw fekk si suñu mbokku diaspora yi di waxtaan ak ñoom ndax gunge leen ci ñu seen i mébétu kër et dafay permettre que ñu dajalee ñëpp ñuy intervenir ci financement immobilier ci benn place muy banque de l'habitat muy promoteur yi muy les l'administration chargée des impôts et domaines ak waa CADAS pour mun a waxtaan ak ñoom seen i mébét ñun daf ñuy permettre aussi ñu waxtaan ak ñoom waxtaan ak suñu mbokk diaspora mooy permettre ñu leen di jox ay produits yu adapté à leurs besoins mooy produits ya nga xam ne conforme na ak seen mbëbët loolu sax moo ñu permettre ñuy wàññi taux de taux de crédit yokk dure de financement yi loolu yëpp dafay permettre ñu mun a yegg ci financement yi ci ko anam yu gën a yu gën a yomb. ci loolu yëpp nag euh, dalal xel la ñuy rek daal di jeexale parce que xam ngeen ne dalal jëriñ ñu dénk wàllum kon tabax mi ñoom i tamit euh, ña nga fa woon secretaire général lu dalal jëriñu moo fa représenté moo fa représenté woon euh, ministre bi wax na lu bari ci li nga xamante ni moom mooy kon dal xel bi waaye surtout cent mille logements yi nga xamante ni président de la république bëgg na ko rek daal di sanc fii rek juróom fii ak juróomi at waa diaspora bi dañ cee am wàll bu bare bari am décision boobu ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk euh, wàllu logement yi mu ngi commencé ay concertation parce que li président santaane dafa bëgg bi yoon mu nekk euh, loo xam ne acteurs yëpp dañ ci bokk ñu fexe ba sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci promotion immobilière coopérative yi tout le secteur public tout le secteur privé tout le secteur privé bi nga xam ne euh, am na ay architecte am na ay géomètre am na ay euh, entrepreneur de travaux publics parce que il faut penser à l'aménagement des sites ñooñu ñëpp ministre dafa leen bëgg dajale dajale toutes les forces vives ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci boobu place pour que objectif bi ñu mën ko def nga xam day nekk par exemple vingt mille logements ci at mu jot euh, bu ñu defee mécanisme yooyu ba noppi autorités yi am na ay outils yoo xam ne ñu ngi ciy jóg pour mën a yombal financement bi mais également fexe ba dugal garanti boo xam ne dina gunge acquéreur bi ba nga xam ne bu fekkee ne sax dafa néew doole wala revenu am dafa irrégulier garantie boobu dana mën a tax banque yi ñeme ko mën ko lebal ndaxte il faut ñu agir ci promotion bi agir ci acquisition bi mais itam état dugal loxoom ndax état bu dugalul loxoom du nekk logement social état pour mu dugal loxoom nag il faut ñu jéem a yombal aménagement yi yombal VRD primaire yi fexe ba site yi nga xam ne ci lañuy def dëkkuwaay yi mu nekk site yoo xam ne day am cadre de vie bu normal cadre de vie bu sain pour cadre de vie bi sain nag il faut ca tàmbali ba ñu sóoraale ko ci aménagement yi def ba nga xam ne lépp luy waaj lépp luy war waay lépp luy war ci biir dëkkuwaay mën cee am. dañu xalaat ne euh, faaw ñu wut levier yëpp yi nga xam ne dina yombal acquisition. ndaxte location vente am na lu fi amoon léegi am na promoteur yi nga xam ne ñu ngi leen di encourager pour ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom la nit ki di fay ci location bu demee ba nga xam ne waxtu wu ko fayee euh, loolu dugg déjà ci moomeelu këram day nekk loo xam ne day yomb ndax ki mën a fay admettons cent mille francs weer bu jot bu ko bëggee fayloo cent mille francs yi ba noppi muy épargner pour mën a tabax day metti mais bu fekkee ne cent mille francs yooyu muy dugal waxtu bu ko dugalee rek mu ngi jënd këram heure bu yeggee day nekk lu nga xam ne lu am solo la moo tax dañuy encourager bu baax a baax ñi nga xam ne dañuy def location vente même location simple parce que am na ñi nga xam ne bu fekkee ne dañoo nekk ndakaaru te seen dëkk bi ñu jógee la ñu bëgg par exemple dëkk foofu la ñuy tabax bu ñu nekkee ndakaaru ñu wutal leen lu nga xam ne bu ñu ci fayee loyaas bu yomb parce que public bi moo ko defar wala benn promoteur bu public bi encadré moo ko defar dana tax. loolu tamit seen dëkkuwaay yomb te tere ñu mën a am lu ñu continuer épargner ba foofu ñu nga xam ne fa lañ dëkk bëgg faa tabax ku dëkk maatam bëgg tabax maatam ku dëkk parce que loolu tamit la ñuy encouragé sunu ministère euh, ginnaaw pôle yi nga xam ne mooy juróom-benn pôle yi nekk Ndakaaru am na vingt 27 pôle au totale yoo xam ne mooy am ci gox yëpp donc fépp la ñu bëgg promotion bi sénégalais yëpp sentir ko gox boo dem war faa mën a am kër gu jag ci njëg bu yomb. te mu nekk ci alam ci environnement ci cadre de vie boo xam ne cadre de vie bu sain lay doon. mu nekkoon Serigne Mbaye moom mooy secrétaire général de l'ONG ñu dénk kon wàllum euh, tabax mi. Euh, fii nag la ñuy yem ak yéen ci émission wu sama këru tey bi xam ngeen ne nag salon itinérant euh, bu habitat du rek ay promoteur ñoom ñoo cee daal di dem waaye ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi rek daal di ŋànk euh, wàllum kon suuf wala wàllum tabaxin ña nga fa woon waa impôt domaine daal cee dem parce que ñoom aussi dañoo am wàll bu mat ci loolee mais aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo kon jege de près ou de loin miirum rek daal di tabax pour wan sénégalais yi nekk à l'extérieur ne leen kon boo leen di tabax foofu ngeen jege kon notaire yi foofu ngeen def ay démarches pour a xam ne euh, fi ngeen di dugg wóor na wala wóorul mais li nga xamante ni moom mooy euh, kon salon ba euh, promoteur ya ca dem yëpp day fa fekk ne dañoo nekk ay promoteur yu ñu rek daal di agréé nangu bu baax seen liggéey mais surtout liggéey bu rafet bi nga xamante ni ñu koy rek daal di def fii ci suñu réew dañuy jeexalee kon ak image yi nga xamante ni c'est des images mbégte ay image bànneex yi nga xamante ne dund dañ ko diggante Montréal kon ak Chicago ci loolu nag ñu leen di jox dig daje beneen yoon incha allah seen beneen émission sama kër Thank you. gi baax na ci kër gi ne saa ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci kër gi